surtout que amul benn loi amul benn réglement boo nga xamante ni euh, teggi na loolu loi yëpp euh, consacré nañ ne am nañu droit ci logement alors loolu bu deñee rek def naa ni loolu dinañ ci mën a kile beneen aspect bi moo di ñàkk gi suñu statut ndaxte amuñu doole ku ne xam na ni amuñu alal ju ñu jënde logement e logement yi terre yi ñuy joxe maanaam parcelles yi ñuy joxe ci communes yi aussi nañ koy joxee itam xam nañu naka la malgré que am nañu parité maintenant ci euh, euh, instance yooyu li ñuy ñaan rek mooy ñu dooleel suñu euh, mbokki jigéen yi suñu nattaango yi fa toog ngir ñu mën a am accès ci doole ak ak taxawaay ngir jigéen ñi mën a am logement mën a am parcelle ci communes yi mën a am logement ci projet HLM yi nga xamante ni ñu ngi koy def ak projet promoteur yi li ci fukk ak benn daal moo di Sénégal amul benn loi boo xamante ni xañ na jigéen ah euh, président Macky aussi wan na na volonté li ci des nag moo di ñu accompagner ko wax ko ni ko bëgg nañu bokk bu ñu joxee vingt cinq pour cent dinañu dem kon na fexe ba bépp promoteur mën a jox euh, doomu Sénégal bu jigéen vingt cinq pour cent ci projet bépp bu mën a am moom ci boppam ci politique sociale am gouvernement bi taxaw ci loolu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 waaw tey ngeen amal fi benn lël bu am solo jagleel ko naka ngeen di def ba jigéen ñi mën a am euh, kër. Mhm. solos ndaje bi liñ ci mën a tënk. liñ ci mën a tënk mooy li ñu gis ci statistique yépp yoo xam ni génn na ci Sénégal ak ñun bi ñu defee euh, recensement bu profil socio-économique yu bénéficiaire union régionale des coopératives d'habitat bu Thiès.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 mais taxu leen ñu bari biñ ko xayma am na 39 pour cent sociétaires yoo xam ne ay jigéen lañu mais bi ñu xoolee ñi ci am ay parcelles war a dem tabax ñu sax 20 pour cent donc mooy téeméer bu jot ñaar fukk yi boo ko ci seetloo amaguñu suuf kër bay mën a dem tabax ñuy wax euh, logement bay dem habitat ba ñuy wax cadre de vie.